alors ñu ñëw ci loi d'amnistie bi moom itam euh, actualité la woon bu nekkoon ci début semaine bi finalement voté nañu ko à l'Assemblée nationale euh, xëccoo bi bëri woon na gis nañu taxawaayu parti démocratique sénégalais mais euh, yéen dafa mel ni bi ñu waxee loi bi ba war dem ci vote bi da ngeen jël yëf yëpp jàllax ko Ousmane Sonko seen communiqué polémique boobu lan ngeen ci jublu. écoutez ñun. naan waa Yewwi bu ngeen voté wii ñu voté wii bu ngeen voté non ñu voté non mel ni ñoom ñoom moom loi bi. xam nga la loi d'ordre général et impersonnel donc loi bu ñu koy tëgg ay luwén jublu ñu mu jëm ci ma sàmba ma dem mais loolu waxin la rek noonu la war a demee en tout cas noonu la war a demee mais hmm? dans les dans les dans le fond la loi bu ñu ko jëlee dafa am ay personnes essentiellement ñu parce que xam nga tax même même bu ñu waxee les faits faits yi dafa am ay nit ñu ko def les faits li tax ñu jël la loi d'amnistie fu mu jógee c'est à des rassemblements organisés euh, proposé proposé par par euh, proposé par des par par un parti politique ou par une coalition de partis du ñooñu nag ñooñu ñoo fexe bu am il y a eu mort d'homme il y a eu ñu taal ay kër taal ay oto toj ay ay ay ay édifices publics yàq-yàq bu bëri c'est des infractions qui relèvent de manifestation manifestations par des hommes politiques. Ousmane Sonko c'est pas pour rien ñu jàpp leen. tuddal Ousmane Sonko non du Ousmane Sonko rek Ousmane ak ay ñooñam ak ñenn ak ñenn ak ñeneen. du dëgg donc bu fekkente ni loolu am na euh, ñu ni Macky Sall mu ni moom le président Macky Sall mu ni moom dafay dem te def bëgg réconciliation def def li ñu tudd la réconciliation des cœurs man def bëgg ñëpp déggoo ñëpp am jàmm. ñu juboo bala muy dem am na sañ-sañ boobu lecture am lecture am la mais ñun bu ñu seetee ñu xam ne ñii ay léegi ñoom lañ dut baara te li tax ñu def ko ñoom ñii ñoo ko waral te ñoom ñu taxaw fu nekk naan ñun naaju ni amnistie soxluñu amnistie nangam nangam di di di bàkku di kii ñu ne mooy yéen ñun am ñu si benn intérêt ñun suñu yoon newu ci wax dëgg yàlla loi bi taxul ñun ñu. waaw lu dee tam ngeen jàpp seen jàmbur rek. gannaaw non non non attends xam nga. mais seen communiqué boobu cokkaas la. non non du cokkaas. cest cest à <laughs> dëkk que ñun xam nga li ma la wax sànq rek moom li moom laa lay waxaat. Mm. suñu expérience macha allah moo ñu may lecture boobu. dañu wax ne ñii nga xamante ni ñoom ñoo tax loi bi jóg buñ jógee fii di kaañu naan bëgguñu ko wutuñu ko nangam na nga xam ay caaxaan. ah da ngeen bëgg ñu assumer. mais dem dem bëgg ñu assumer ah. parce que bu ñu demee bay génnee plus de quatre cent personnes qui sont toutes membres de leur formation politique. ñenn ñi kay seen yoon newu ci détenu yu bëri yu génn ba tey nee na doxi seen soxla ñu jàppale waa am na loolu am na ci du ma ko weddi ndax loolu gis naa ay cas yu bëri yu mel noonu ça c'est très mais li ëpp ci loolu ci ñoom lañu bokk loolu tam nañ ko nangu ñu ëpp ci dool di ñoom lañu bokk kon nag ñoom la alors donc loolu moo tax ñu def suñu communiqué wax loolu mais weet terewul ni bi ñu demee ba ci biir nous avons donné libre conscience à nos députés libre conscience à parce que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale alors euh, les députés dañu am un mandat impératif kenn war leen conditionné lu dul seen conscience am ñoo xam te wati nañu pour wati nañu pour am ñoo xam ne wati nañu contre loolu am na loolu na seen jégal guy la dañ leen koy nangul itam dañ leen koy nangul donc ñële itam wati nañu contre seen affaire la donte ils sont bénéficiaires mais seen affaire la loolu yëpp c'est du populisme du leneen c'est du populisme rek politique du leneen mais en xam nañu nii Euh, seen candidat bi ñu yaakaar mu ngi en dans les liens. Bassirou Diomaye dans les liens de la justice. Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye. Mm. Euh, ñu bëri ngi posé question nak la ñu fan la ñu jaar tey bo ba mu ba mu romb frontière yoon bu nekk candidat bu ak acté ko. loolu tam daa tey seen xel. loolu ñun rek la tey suñu xel àddina gépp la tey seen xel. mais lan moo tere ci wàllu yoon conseil constitutionnel waroon na mën a xool loolu. fu fu fu nag la demee mais amul dara ci yoon luy tere administration péni administration pénitentiaire am na ci responsabilité. mais dara amul ci wàllu yoon luy tere Diomaye nekk candidat. d'accord naa il n'est pas encore jugé il est présumé ah, innocent. ah kay xam lu tax d'accord nañ d'accord mais yoon defi nekk xam ko xam ne daf nekk entre lien liens de la prévention nga nekk foofu mu nekk administration judiciaire rek moo am sañ-sañu autoriser la nga signer luy signer wala leneen. wax te moom signé na administration pénitentiaire gisul dégul ba ba ñu atte ko loolu loolu moo loolu mooy problème bi atte la mais nangul nangul candidature war en temps normal loolu warul mën nekk en temps normal loolu warul mën nekk je l'affirme ici donc loolu mooy problème bi donc y' a beaucoup de manquements yoo xamante ni. kon yéen est seen problème seen problème du Diomaye. parce que Diomaye moom nee am na ay sondage yu ne. élection yi balay janta soo ñu plier mais xam nga sondage yi dañ leen di fay. mu gagné sondage est du looloo leen. bul ci ay ger ak ay kaa oh, xoolal ñun ñoo leen jiitu ci politique. Mm-hmm. xam nañ naka la ñu organiser des sondages nous savons comment les sondages sont organisés au Sénégal. Mm. te ñoo leen jiitu téeméer junne sur le terrain politique mënuñu xam lu ñu xam mënuñu def lu ñu deful. c'est c'est la vérité mais mais seen popularité jarul sondage. quand même non seen popularité. c'est visible bu dee bu dee dañ ko jël ci toj ak taal. ñu populaire taal mais yow tam gis nga Pastef suñu wootee ni muy ñun ñun ñun dañu user des conventionnelles. ñun li ñu yoon may la ñuy jaar. parce que ñun li fi am ci réew ñun ñoo ko defar li am ci réew mi Abdoulaye moo ko def ak gouvernement kon duñ nangu ñun dem di ko toj al di ko taal duñ ko def dañuy jaar ci loi yi jaar ci décret yi foofu la ñu jaar ba am li ñu soxla ñun loolu mooy ngor loolu mooy loolu mooy être républicain mais bu des populaire da nga jaar ci bu kii nañ toj bus yi nañ taal kër yi nañu. Euh, Sonko kay santaanewul loolu et cetera et cetera non ma Sonko tudd ma Sonko tudd ma Samba tudd ma Demba mais mais loolu moo fi am événement 21 mars la woon ak ba bërki dem boo jaay les quatre morts la fu mu jógee. quatre morts yi kat nag moom report bi la. dañoo reporté sénégalais yi en quatre morts yi moom kenn mënu cee tudd Ousmane Sonko kenn mënu cee tudd. ñun report nañ ci ay élection est-ce na ay morts. Ah. en 2017. mais report bi moom. amul lu ñu ci mën a takkal waa Pastef nag wax dëgg yàlla faruma ñoom mais nag. report report élection 2017 est ce que amoon na moo. quatre morts yi ah doon benn ak local. où est la différence. ah bokk la yooyu. c'est les élections mais bii nit dañu jàpp ne président Macky Sall mandaam dafa jeex dafa war a dem. et yi ñuy def nii yëpp c'est pour que mu toog fii te loolu majorité. sénégalais y avait y ne justifie xanaa ñi doon tiire lañ ah. loolu mooy problème bi waaw mais ñi ñi jël. loolu amoon na ci mars 2021 amoon na juin 2023. waaw est-ce que bi kon Ousmane Sonko kese la arrangé. parce que ñi ngi wax waxi nervi ñi ngi wax waxi force de l'ordre yi tiire donc la loi d'amnistie c'est pas finalement. en tout cas en tout cas en tout cas en tout cas man néew ma moom la néew moom lu mais en tout cas ils sont bénéficiaires de ça. Ils sont, Et peut-être ceux qui ils sont bénéficiaires. Aussi, hein? Ils sont bénéficiaires de cette loi d'amnistie. Là, au moins, c'est clair. Ak ñi doon tirer. ñu tirer woon non en tout xam nga ñoom ñi ñi gaañu ak ñu yàqule mais les forces de l'ordre pourquoi on on les on les mais ñoom dañu leen dañu am am na ñoo xam dañu gaañu. mais gis nañ fi ay images am na ñoo xamante sax. gis nañ ay images. am na ñoo xamante ni sax policier visé. tiire nit mu daanu loolu gis nañ ko. mais gis nañ fi ay image yooyu alba ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñi ñenn ñi xamuñu leen ñu ni ñi jën jooy ci àll àll ba sore ba ñëw fi yéen vous êtes des journalistes. oui avertis. Mm. dégg ngeen loolu gis ngeen ko. alors il faut il faut parler de ça aussi. c'est ça donc vraiment. du côté du est-ce loolu yëpp moo waroon tax ñu bañ a gaawantu def loi d'amnistie ñu def ay enquêtes ba enquêtes yi leer ñu xam qui a fait quoi après ñu soog a baalante. les enquêtes les enquêtes Parce que c'est le gouvernement ki a la responsabilité de faire des enquêtes. J'espère qu'ils ont fait des enquêtes. J'espère qu'ils ont même reçu les conclusions d'enquête. Parce que gis naa ni. wax nañ ni ñoom effet enquête denc loolu amul waa gis naa ni ñoom ñu ni ñi nga xamante ni yàqule am na compensation mu ñu préparé pour jox leen. dégg naa madame le ministre chargé de la justice wax ko keroog li muy défendre la loi d'amnistie lu jiit loolu tam dégg naa président la république je crois moom am na ci benn sortie bu mu wax loolu mun loolu état war na ko def ministre bi confirmé na ko cela veut dire que loolu ça découle des enquêtes qu'ils ont faites ils ont commandité ba am résultat yi kon je pense ils ont un boo xamante entre leurs mains pour mën a seet naka la ñuy indemniser ñooñu ak ban forme euh, jàppale bu ñu jàppale de façon sociale assistance comme ni ñu donc euh, loolu mooy affaire bi mais en tout état de cause c'est des éléments regrettables ñaan yàlla suñu borom lu mel noonu bañ te am Sénégal parce que loolu dafay delloo réew mi ginnaaw dafay féewle doomu aadama yi day féewle la classe politique féewle la classe sociale féewle les marabouts féewle les familles entre elles-mêmes te lu mel noonu baaxul nañu fexe ba démocratie sax fexe ba dëgg dox ñu jubal dëgg institution judiciaire yi nga xamante ni ñoo yor mbir moomu ñu fexe également lépp loo xam ñoo ngi koy def ñu tekk ci yoon yoon rafetal lépp xam nga mbir mi bu tegoo ci yoon rek kenn du juum mais li gën a bon mooy jël nit sosal ko ni ko reykat nit nga wala yaay taalkat ngir te fekk mm. daal amu ci loolu baax loolu vraiment mooy affaire bi quoi tam je pense que daal war na si tirer des leçons yu am am solo pour que lu mel noonu bañite am Sénégal moom leen ñaan yàlla. mais yéen amu leen benn problème pour que Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye retrouver seen liberté. tey lañu bu ñu sañoon duñu fa dem sax bay génn. bu ñu ko sañoon parce ñoo ñooñu nga wax ñun man mi personnellement samay xarit la personnellement hmm. non seulement ça même seen entourage yëpp ñoo muy suivre ñoom ñëpp samay xarit lañu et te te du man rek ñun ay xaritu PDS lañu ñun ñëpp ñoo bokk lan landerno politique bi jàmm la ñu yéenante jam la ñu war a amante sequñu leen lu dul jàmm ak teraanga yàlla seet na ko hmm. bu ñu sañoon duñ fa dem ba ñu laan war nañu génn waruñu génn kon kay xam nga xam nga loolu jeex na loolu loolu am am solo la la am solo la vraiment ñu leen di ñaanal ñibbi si ak seen kër et puis y a un truc que Karim Wade a fait récemment mu ni dafay ñaan yàlla. Sonko génn Sonko génn daje ci langue bu bi. président xam loolu dara gën ko neex wax dëgg yàlla parce que c'est une bataille d'idées simplement. kon de Karim daa mel ni moom il est certain que dafay nekk candidat. mais déggoo li ma la mais way yow élection moo am fi Sénégal de Karim nekkul candidat itam loolu dama bëgg. <laughs> élection dañuy dañuy dañuy taaxuraan entre nous hmm. taaxuraan waaye tam il faut des élections inclusives mënu jël nit ay nit ñi leen coppit noo leen bokk ci ay des choses fallacieuses mënul nekk léegi bu ñu forcé le 24 bi dem nag lu ngeen di def mais mais ëllëg les conséquences ñoo koy gis conséquences yi lan la ah les conséquences c'est que le, le gouvernement qui sera issu de ces élections là certainement ne sera pas reconnu par le ah pourquoi ah, mel noonu am na fi Parce que quand même, une élection, elle doit être organisée méthodiquement et sérieusement. Elle doit être ouverte à tout le monde. On ne peut pas bloquer certains, permettre à d'autres de partir et dire qu'on a fait des élections démocratiques. Ce n'est pas vrai. De telles élections ne seront pas démocratiques. Si tant est qu'elles vont se tenir, elles ne seront Et elles seront contestées. Et dans la contestation, pour tout, tout, pour, tout peut agir. Elles seront contestées. Si de persistons, ces élections-là seront contestées, quel que soit le vainqueur qu'on qu aura déclaré à l'issue de ces élections-là. du yoon du dëgg. contestation bi quand même du mun a yàgg. du mun a ah, éternel. yàlla da ngeen di def recours après bon. la juridiction compétente va peut-être yàlla moo xam ñun daal li ñu soxla daal mooy. bal ñu fay egg ñu arrêté processus bi ñu reprendre ko. Hmm. ñu fexe ba ñëpp dugg. waaye bu boobaa Moussa Pathé Demba Fatou. bu gagné xam yaa gagné. pourquoi lu tax ñu ragal loolu. ñoom ñii ñi nga xam ne jàll nañ ñoom ñoo war a loolu ñoo xam bu dee nii ñun du ñu dem nous voulons une élection inclusive ils sont pressés de partir te am na nee naa à deux ou de trois personnes faire suñu potu sardine lu leer laa la wax quand même loolu jarul jarul coow non quand même ils veulent un non se voir euh, hausser les épaules alors qu'ils n'ont aucune personne derrière njëriñ lundi un nouveau jour se lèvera di ngeen dem cour suprême déposer seen recours incha allah mu annuler le décret bi président de la mm. république jël mm. Mm. te mu fixer la date de l'élection présidentielle euh, le 24 euh, mars 2024 c'est bien ça donc ñu ngi xaar ba xam seen recours boobu muy mujj waaw on verra bien de toute façon nous nous allons assumer notre responsabilité en tant que coalition Kaiwa 2024 en tant que front démocratique pour une élection inclusive Euh, bu boobaa ñun dina wàccoo ñun ak nu conscience. Mm-hmm. et la bal sera dans le camp de l'institution judiciaire concernée et les Sénégalais observeront. Mm. foofu lañ toog. jërëjëf Pape Ibrahima Faye mi ngi lay nuyu nee na moo nekkoon sa collègue sa petit à la Sonacos. wax dëgg maa ngi koy ziar bu baax sama xarit la gërëm aussi internautes yi nekkoon ak ñun ñëpp ci live bi Ibrahima Pleya surtout notre super def leen comme moom aussi souscrit